qui dit que gendarme et cetera <laughs> euh, question boobu am na beaucoup de vos confrères yu ma ci mës a takkini man euh, ma réponse a toujours été la même dama leen ne Jamra n'a aucune prétention d'être le directeur de conscience de qui que ce soit d'être le gendarme de la morale de qui que soit taxawaayu Jamra lan la comme taxawaayu pour que les gens comprennent mieux taxawaayu nos amis de ASCOSEN association sénégalaise des consommateurs qui fait des résultats ah, parce que Momar Ndao am na jaloore bu mag bu mu defoon en 2019 c'est le fameux riz buffalo bi fi nekkoon weex comme ceeb sew comme ceeb ba pare yomb moo attiré woon seen soupçon bañ ko analyser en laboratoire ñu gis ne dafa am dañ ko jaxase avec des cristaux de gel bi nga xam ne c'est cancérigène ils ont tapé fort état bi jox leen dëgg dal di saisir tous les stocks de buffalo ki ko fi dugal ñu dóor la amende de 40 millions donc ils ont protégé la santé publique parce que dañ doon jaay ceeb boo xam ne dafa am cristaux de gel et c'est cancérigène ma ne kon taxawaayu Jamra du leneen parce que ñun jàpp nañu ne euh, produit de consommation yi c'est pas seulement le riz avarié les les tomates euh, périmées euh, ñun jàpp ñu ne produit de consommation yi dérive audiovisuelle yi ci la bokk yii dugg ci yóoru xale yi di dem ci seen xol comme réewu lañ qu'on a combattu te am ci ñoom gain de cause nga xam ne c'est à nette orientation LGBT mhm. wane mmh. de jeunes acteurs 17 ans 18 ans yu diw fond de teint rosa di regeju di dammi loxo xale yi di ko seetaan na eh wala ko jigéen di nu muy di ko def di ree <laughs> le danger mooy xale boo koy tàmm di woon musiba jaarale ko ci kaf progressivement dafay dem ba incrusté wu dans son subconscient. bien loolu ngeen tuddee yéen les techniciens de l'audiovisuel. l'influence subliminale de l'image. Mhm. et en terme xale bi day dem ba yàgg daan ne Jamra dafa rëy làmb rek ndeke góor jigéen ayut. Mhm. foofu la suñu combat nekk c'est-à-dire nous combattons la désinformation le euh, l'intoxication à travers certains outils de média assez puissants tels que les les te à terme yow Albert li nga yar sa doom dix ans quinze ans ba mu normal nga def ci moom ay jikko yu baax def ci moom xam-xam. d'accord mu seetaan benn série rek li nga tawax yëpp mabbaat c'est inacceptable. Ah, kon loolu laa ah, lay def deuxièmement. Mhm. n'a pas inventé des lois. dama la jox exemple la loi 2008-11 du 25 janvier 2008 c'est pas Jamra qui le dit c'est l'Assemblée nationale souveraine qui l'a voté qui interdit toute forme de décision. à travers des vidéos, images et sons de, de production ki portent atteinte à nos bonnes mœurs, qui dégradent l'image de la femme ou qui met en péril la santé mentale et morale des enfants. Alors loolu waral la la la série infidèle defoon nañ ko ci saison trois bi. def yu mel noonu nga xam ne ay dagg yi saaga ndey moo ci am donc ça porte atteinte a nos bonnes mœurs Jamra da ngeen di jël seen loi boobu la jël daal di ne procureur loi bi yée na ko moom violé na ko procureur ne ah attends je vérifie ah oui il l'a violé où sont les preuves ma ne ko extrait il frappe ça c'est pas gendarme ça c'est c'est un rôle d'alerte et c'est c'est votre à vous aussi. mais ana ñu waroon a saytu. voilà voilà la bonne question voilà la bonne parce que bu génnee ba pare. waaw am na ci wàllu mais. voilà direction de la cinématographie. Mm. voilà je pensais que dafa am ay ay secteur de censure voilà lu jaaduwul ñu leen léegi lii. voilà dañ balaa diffusion. ñu valider voilà. donc nous ne sommes pas des gendarmes mais des lanceurs d'alerte parce que li ñuy lancer alerte du ñu jóg suñu bakkanu bopp dañu naan lii la teg say kii la lee def procureur loo ci xam mu ne ah am ngeen preuve ma ne ko preuve yaa ngi mu ne ma ban la ma ne ko série bi euh, euh, Sen TV di dawal ñi di ko wax kawtéef dès les premiers épisodes sa confrère rek la yërëm ndeysaan par fay parce que il a été mis devant les faits accomplis moom moo doon def micro central bi xam nga kawteef du série kawteef euh, kii la est ce que xam nga souvent yenn yooyu. ngay dañ ko waaw amatu fa moom. Euh, yoon arrêté na ko non man yooyu du ma ko seetaan mais dama xam ne euh, kaw kawteef télé réalité la. ñu ngi koy inspiré de la télé réalité française bi daw ci RTL 9 ñu di ko wax ça va se savoir autant ça va savoir ça parle ça parle de société de manière normale. ba pare scénario bi c'est connu d'avance parce que dañ ko daan publier dans les journaux people ay Paris Match ak yooyu. Mm-hmm. autant kawteef bi daan daw seen pour cent yi moo tax da nga daan toog sa salon yaa ak sa doom say jarbaat entre actrice ñu jëkki di daggantey saaga ndey est-ce que c'est acceptable daggantey saaga ndey direct ah, on a attaqué procureur jox ñu dëgg ne arrêté leen ko ñu arrêté ko ça c'est pas du gendarme on fait des des, des alertes en fondant sur l'arsenal ah,